leen jàmm ci euh, révélation yi nga xamante ni ñëwaat na euh, ci euh, coow li nga xam ne moo nekk ci diggante Ousmane Sonko ak xale bu jigéen bi di wër ci turu Adji Sarr nekk ci benn salon ji ñoon Ousmane Sonko mbiru viol ak menace de mort Ousmane Sonko nag mujj na génn daal di wax ci situation bi di mel naka noonu tamit ki nga xamante ni moo di patronu Adji Sarr moom tamit génn na wax Ousmane Sonko nag moom ni ki tey ji la génn di xamal sénégalais yëpp na seen xel dal ni lii xew fii ci réew mi jamono ji ñëpp di ko wax dara amu ci ay kàcc neen la ay mbexe la yu ñu nas yoo xamante ne nii fan yee la ñu génn avertiroon nañ ko ne am na ñoo xam ne jóg na ngir bëgg la créer ay mbiru mërs yoo xamante ne nii bëgg nañ la rek yóbbu ci kaso bi yàqal la sa candidature ci élection 2024 yi ñu jëm mbir yi nag fi mu toll nii ëpp na loxo ndaxte ah, soxna si ah, déposé na plainte ba ñu déglu ko lu tolloo ko ñaari yoon waaye ba tey jii nii reculé wul ci position am ne Ousmane sonk moom ci boppam sàkku na ko lu dul benn yoon noppi di ko menacer de mort ci bés bu jékki-jékkee siiwal li waaye bu nu sukkandikoo ci patron bi nga xamante ne nii mu ngi wuyoo ci turu Ami Diop nga xam ne moom moom salon bi ci boppam wax na ni en tout cas xam na moom ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ñàkkul fayda te tam client la boo xamante ne nii dafa ponctuel saa yu jóge ko ci bitim réew bu àndeek fatiguement day ñëw directement ba ci salon bi fii la ñu koy massager salon bi nag kër la goo xamante ne nii famille lëmb la sama borom kër fii la nekk ak sama njaboot ñoom ñii fi nekk ba ci Adji Sarr ci employé yi la ñu bokk Adji moom ci boppam sax mosoon naa ko fee dàq waaye ñu génn rek ci la dellusiwaatee moom nag dafa louche moom Adji Sarr patronam bii di wuyoo ci turu Ami Diop moom moo ko xamle ndaxte nee na lii xew jamono ji ci réseaux sociaux yi ñu koy tudd lépp ragal na ne moom dil la ndaxte Adji Sarr benn jour dégg na ko muy wuyu téléphone ak beneen xaritam boo xamante ne nii mu ngi ko doon xamal ne ko léegi maa ngi ci VIP yi ndaxte ci biir salon bi man maay mancé ki nga xamante ni moom moo di leader politique bi gën a siiw ci Sénégal te moo di Ousmane Sonko ci la ko xaritam boobu wax ni fexeel ba am ci moom spermam dinañu permettre ñu mën ko teg dil dil boo xamante ne nii par force lu ñu bëgg dinañ ko am ci moom patronu Adji Sarr bii di wuyoo ci turu Ami Diop di jour boobu nga xamante ni Ousmane Sonko ñëwoon na fa maa ngi fàttaliku ne sama borom kër mu ngi fa woon sama njaboot gi tamit ñu ngi fa woon moo tax bi mu yegsee rek dama déggoon dèjà Adji Sarr tegoon dil moo tax jour boobu noonu dama changé ki nga xamante ni moo ko war a maasé ma jël kenn ci ñi nga xam ne ni ay bees lañu di débutante wax ko ne ko demal ci biir salle bi nga maasé ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko waaye teewul Adji bi mu duggee bi fekk fa débutante boobu daf ko génnee ci biti ne ko bàyyil ma ko man maa koy maasé toujours Sonko ba dem donte ci jamonoy couvre-feu la ñu nekk waaye ci guddi gi lañ ko jël moom Adji Sarr ay oto yu noir def seen cortège jël ko yóbbu ko hôpital ñu teg ci ay fan rek moom mu xamal ma moom Adji Sarr ni actuellement dafa nekk enceinte ëmb na waaye nag détaillé benn yoon kan moo ko ëmbal ak fan la jëlee ëmb bii moom Ami Diop di borom salon bi di xamle ne Adji Sarr employé kase la comme ni nga xamante ne nii la ñeneen ñi nekkee employé du man maa plainte Ousmane Sonko waaye Adji Ousmane Sonko bi te bu ñu moytuwul fii ak quelques njiitu Pastef bii dana wuyu ji section de recherche ak lu mën a xew ci situation bi borom salon bi xamal na àdduna bi yëpp soxna si nga xamante ni moom moo di Adji ñàkkul na ci dil dëgg la nekk pour suuxal njiitu parti bii di Pastef Pastef di Ousmane Sonko yàqal ko carrière am moom Ami Diop mu ngi xamle ni Ousmane Sonko yàgg na fee ñëw suñu client bu dëggu la xam nañu personnalité am ba moo tax sax bu daan ñëw benn façon massage dong la doon def ngir bañ ñu xàmmee ko te moo di day wane ginnaaw te du simmi sax yërëm bi yépp ñu maasel ko digg ginnaawam bi muy soog a dem benn façon massage bi dong la fa doon def kon nag yii ni mel xel sax da ko nanguwul muy am ci kër goo xamante ne nii famille bi ñëpp nga fa nekk en tout cas lu ñu mënti xew enquête dina topp ci cas bi ba fa ñuy mujj ci diggante Ousmane Sonko Adji Sarr ak Ami Diop mi nga xamante ne moom moom salon bi ci fàttali nag moom Ami Diop moom ci boppam section de recherche mu ngi koy bàyyi ni xel ndaxte ba léegi si ni bouclé gu ñu enquête ci coow li nga xamante ni mu ngi lëmbee jamono ji réseaux sociaux yi